waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi siyaaraan ñëpp di leen joxaat seen wàccuwaat tey tuubalaat bu baax mbokk taalibe yëpp waaw comme niñ ko defee woon la fois passé rek naa dañuy defaat benn résumé bu ndaw incha allahu taala balaa ñuy jëlaat leçon euh, la fois passé ñoo ngi yemoon ci maanaam boo dugalee vidéo ba pare ci timeline bi boo bëggee partie boo nga xëy ni bëggoo mu apparaître ci video bi nan nga koy dindee avec uti cut waaw kon bu ko defee dañuy ñëw rek ñu continuer video bi indilaat leen yeneen euh, kii yoo nga xëy ni ci biir Adobe première Pro euh, lan kay lan koy lan ko lan ko mën a defee waaw kon mën nañu ouvrir benn projet ñu créer waat benn projet rek euh, comment dirais-je ñuy tuddewaat ko Tito Pro, Premiere Pro Premiere Pro Ring ke bës entrée mu de mu jàll nga ah léegi ñëw na eh, la fois passée boleh eh, boo leen seetloo waxoon nañ leen ni manam on a eh, am amnan amnan nan am facette bu bari bo nga xeyni man nan ci dugal vidéo ci bir Adobe Premiere Pro la fois passé ñing leen wanon manam bo nga xeyni ngay dem après nga dem euh comment dirais importer importer waxon nañ leen euh kiwom waxon nañ leen raccourci raccourci raccourci bu bayi leen xel ne raccourci ci clavier bi lay nek ay ki yoy

Euh, comment dire, chess. Thiès mais cette fois-ci dañuy jëlat benen vidéo waaw légui pour pour jël une vidéo man nanoo dem sun sun bureau bureau légui tamit comme bini ni méthode la ba nga xëy tay dinañu permettre pour ñu qui jël ay Euh, importe vidéo manam dugal vidéo ci bir Premiere Pro bi légui dañuy jëlat benen méthode bo nga xayn dinañu permettre pour ñu mëna a dugal vidéo ci bir Premiere Pro wa ndax am nañ 3 3 façons yo nga xayn man nañ ko importer vidéo ci bir Premiere Pro comme wax nañ leen da ngeen di dem fichier dem importer tay bu la nexé fi ni ñu def importer le média pour commencer dañ ci def double clic gis nga bo defee double clic da ngay gis tamit panneau bi ubbeeku wa ila ñu fermer panneau bi nga réduire panneau bi ni boko réduire nga dem xooli fichier bi fim nek sa bir machine par exemple ñu xol fi ni voilà yi ay vidéo yun filmé won la Kazu Rajab bi fondation Serigne Fallou wa légui suñu nexé suñu nexé ñu importer fichier bi yépp manam fichier bi yépp yépp yépp ñu duggal ko noonu bu ñu neexee ñu dugg ci biir fichier bi tànn vidéo yi ñu soxla comme la fois passée importe ko waaw léegi kon ñun fichier bi yëpp moo ñu neex mën na noo jël fichier bi yëpp fichier bi da ngay def double clic te xëcc ba ci Adobe Premiere Pro bi mu ubbeeku ni nga ñëw fii ñu la bindal importer le média pour commencer bo boo ko tegee fii da nga gis benn plus apparaître ñu bindal la copier nga bàyyi soo bàyyee xaar mu importer ko waa nii moom yaakaar naa moo gën a gaaw wa ilaa nga ñëw fii def double clic waaw léegi ñu bàyyi ci xel en plus ñu leen di bàyyiloo xel ni maanaam fichier yi nga xam ne ci ngeen di liggéey ngeen koy ngeen koy modifier bu dee vidéo la vidéo long métrage plan large bi mën ngeen ko wutal benn calque calque bi ça benn dossier dossier bi boo koy créer mën ngaa ñëw fii mom nan, nan nan lan nan reus le reus wa man nga ñew fi nga def bo defé ni tay bu la nexé fi ni man nga ko tuddé audio nga xamné ne toute sorte d'audio bu ne nga mi ngi ci biir di soxla rek dugal nga bulan bu la nexé nga ñëwaat après audio nga ñew séquence comme ça dang kay euh, séparer de telle sorte que tay do do do mana a dula yom la dula yom tay la yomb ni di nga xam carrément li ay séquence la li moy audio yi nga xam ne ngay soxla li mom moy vidéo yi nga xam ne ngay soxla vidéo yi tay fichier bi mako importer mi ngi tudd streaming bu la neexee fii man nga ko man nga ko ki renommé nga tuddé ko vidéo sans dépend de vous rek en tout cas mën nga koo renommer noo nga xëy ni tey bu la neexee doo doo doo doo juum boo bëggee surfer sur ojo di nga dem ci ojo boo bëggee dem feneen di nga bëgg a dem feneen dem feneen tey vidéo yaa ngi nii léegi ñu mi ngi nii léegi ñu continuer dañuy jël teg waxoon na leen boo jëlee teg mu apparaître léegi dañuy jëlaat beneen leçon beneen leçon bi mooy boo tegee nii ci vidéo bi da ngay def double clic defal double kilik mu ñëw fii léegi vidéo bi su ubbi fii danga koy liir li gën a gaaw xaar ñu supprimer fii li gën a gaaw nii maanaam ani vidéo bi xaar ñu jëli voilà vidéo baa ngi nii léegi boo defee double clic ba video bi ñëw nii legi video bi dang koy lire vidéo bi bokoy lire da ngay def ni da ngay beus sa tous sa clavier rek legi gis nan ne ndaw si fi la commencer manam fi la commencer di wax legi parti bi yépp dang ko koo dag legi parti bi boko dag manam da ngay def da ngay beus i ci sa clavier bo i di nga gis fi ni ben benn benn benn kii bu weex bu ñëw apparaître waaw léegi nga liir vidéo bi waaw ñu liir ko liir ko liir ko ba fi nga xam ni fa leen bëgg vidéo bi yam fi waaw par exemple pour mu bañ gudd ñu ñu ñu xam ne vidéo bi fii leen bëgg mu yam fi fii nii leen bëgg mu yam fi nga bës pause nga pause vidéo bi boo bësee boo posé vidéo bi nga bës o soo bësee o dangay gis ni parti bii nii yëpp effacé wu na kon lii mu def en blanc moom nga soxla ci vidéo bi léegi lii nag pour nga importer ko fii bu fekkee son bi rek nga soxla bu fekkee son bi kese kese nga soxla ci biir vidéo bi son bi da ngay ñëw fii nga xëcc nii di ko bo découpolire son rek ngay am do am vidéo wa ñu def contrôle Z ça veut dire revenir en arrière bu dee vidéo bi rek nga soxla vidéo ba ngi ni nga xëcc vidéo bi glissé vidéo bi nga xëcc vidéo bi glissé waaw léegi boo xëccee vidéo bi glissé bo liiree vidéo bi son rek vidéo rek ngay am mais vidéo bi do am son méthode bi mën nañ koy utiliser ci séquence yi hmm, day tax mu gën a mu mu gën a gaaw gën a yomb waaw da gis vidéo rek ngay am doo am son doo am dara bu fekkente ni nag vidéo bi ak son bi nga soxla da ngay teg fii sa loxo sa sa sa souris nga xëcci glissé waaw lii rek lay conserver nga boo liiree yaa ngi gis euh, paletu kii bi son bi mu ngi génn da ngay am vidéo ak son kon yaakaar naa loolu euh, méthode bu bu bu bu efficace la pour ñu man cee pour ñu man cee kii nii euh, surfer moo gën a gaaw waxoon nañ leen séquence yi dinañ leen wan nan ngeen dugale ay séquence ci biir ainsi de suite ainsi de suite léegi man nan ni lii séquence la lii séquence séquence de vidéo la li séquence de vidéo la moom it waaw léegi boo defee nii nga liir séquence bi séquence bi nga bëgg séquence bi fii lay commencer ba léegi i nga bës i i bi ça veut dire input input lay signifier pour ñu ko xamul léegi nga liir ba fi nga bëgg séquence bi yam fi ndax séquence moom en général su baree ba bari mën naa nekk ay cinq secondes Euh, cinq secondes sept secondes euh, bu baree ba bari waa séquence loolu daal moo ci gën wala man bokk moom a gënal man fi kii léegi nag c'est à vous de yéen seen séquence nan ngeen koy tege léegi bëgg nañ vidéo bi yam fii léegi nga bës o o bi ça veut dire output input mooy entrée out mooy sortir waa pour ñu ko xamul léegi comme wanoon nañ leen sànq boo bëggee son bi ak vidéo bi boo ko jëlee teg ko fii son bi kese apparaître ak video bi boo xëccee vidéo bi teg vidéo bi rek mooy apparaître boo xëccee son bi rek teg son bi rek mooy apparaître lii séquence la te séquence bi soxlawun son bi ak vidéo soxlawun son bi vidéo bi rek lan soxla léegi da ngay ñëw fii fii nga xam ne moom mooy palette vidéo bi nga xëcc nii nga jël ko xëcc soo ko xëccee nga xool ba fi nga bëgg a teg vidéo bi nga teg ko ñu leen di bàyyiloo xel ni tamit séquence bi boo ko bëggee teg maanaam da ngay ci kaw vidéo principal bi nga koy teg ndax mu mën a apparaître loolu ñu leen koy bàyyiloo xel bu fekkee vidéo principale bi mën naa nekk ci V1 bi vidéo principale comme mën naa nekk ci V1 bi nga xam ne moom mooy sa vidéo principale séquence yi nag boo koy teg mën nga ko teg nii léegi ñu liiraat ñu liiraat suñu vidéo xool gis nga dangay am séquence te vidéo bi te vidéo bi ci suuf vidéo principale bi dangay gis son bi di dem nice te doo ci am benn jafe-jafe waaw léegi bu fekkee fii ñëw nga ba fii léegi fii vidéo bi jeex na léegi vidéo principal bi xam nga fii interview yi la doon def ku ko xool di nga xam ne carrément kii interview yi la doon def léegi mën na noo dem xooli beneen interview dañuy dem ñu xooli beneen interview ça veut dire vidéo suivant bi ñu jël ko indi mais vidéo suivant bi su ma juumul voilà benn ngi nii fii euh, exposition voilà bon xolé ndaw si mi ngi commencé wax fii salam alaykoum wa mi ngi commencé wax salam i mo avancé avancé avancé avancé avancé ba vidéo ba fi nga bëgg vidéo bi yam fi léegi nga comme vidéo bi fii nii exposition la dangay ngay soxla vidéo bi ak son bi moom tamit nga xëcc nga ñëw fii nii nga xëcci ñëw teg mu kolew ñoom ñaar gis nga gis nga bu jeexee rek beneen vidéo bi day day day apparaître directement mais nag fii li gën li gën mooy maanaam nga fi séquence wa nga euh, transition fondu. ñu xam ni kat nañ image bii nii image pour teg séquence wan nañ leen séquence voilà séquence trois secondes la en plus dafa normal waaw léegi boo xoolee séquence bi nii bi muy ñëw séquence bii nii bi muy ñëw ak bee doo ko doo ko doo ko doo ko sentir da ngaa jékki-jékki rek gis ko waaw voilà gis nga te doo ci doo ci doo ci doo ci am benn jafe-jafe séquence yi nag wan nañ leen ni ñuy tege séquence yi war len ni ñuy vidéo ainsi de suite kët bi wanoon nañ leen ko ba bo boo euh kët bi sax euh, méthode bi ma len wan bo len ko utiliser manam i ak o bi bo len ko utiliser normalement kët waru len ko soxla waru len ko soxla ci biir wa légui fi bu la neexee nga tek ci benen séquence bu la tamit nga def ci transition transition yi y yene xol transition yi Transition ñëwee fini nga effet effet vidéo non non même pas transition vidéo bo transition vidéo di ci transition di ci am sens zoom transition par <coughs> Oh ferme fille. voilà di nga am zoom di nga am tout sorte transition transition yu baree baree baree bare ñu ngi ci transition trois d transition fondu fondu bi nag man moom laa leen di conseiller pour ngeen choisir ko quoi ndax moom moom moo gën a normal fondu enchaîné boo jëlee transition bi da nga koy xëcc transition bi ba mu ñëw dina la indil benn kii bu benn effet bu bu mauve quoi chocolat du moins waaw léegi ba mu nekk ci diggante ñaari vidéo yi nga bàyyi léegi soo bàyyee ñu lire suñu vidéo xool transition bi lu mu joxe yaa ngi gis waaw transition bu bu bu bu rafet la transition fondée enchaînée transition bi bu la neexee man nga ko yokk man ngaa yokk durée de transition bi waaw boo defee clic droit def dure transition baa ngi nii une minute la astafirullaha euh, benn seconde di moins benn seconde tey bu la neexee nga def nii au lieu nga def ko benn seconde nga effacé def ko cinq secondes transition da ngay gis ne transition bi day gudd transition bi changé na yaa ngi gis waaw transition bu gudd lay doon mais bàyyi ko benn seconde mu gën a mu gën a mu gën a kii day day day day gën a gaaw daal waaw léegi pour ñu revenir en arrière ñu def contrôle control euh, Z waaw kon daal tey mën nañ ni euh, lii lan leen indiloon waaw incha allahu taala ñu bàyyi ci xel bu baax a baax rek euh, gannaaw bi ngeen xamee ni def ngeen ci wala seetaan ngeen vidéo bi mu indil leen ay jafe-jafe am na loo leen ci xamul wax nañ leen ko tey duntaay di leen ko wax n'hésitez surtout pas à poser des question poser leen ay question bu dee luñ ci mën a tontu la luñ ci xam la des na leen ci tont incha allahu taala buñ ko xamul dem gëstu jiwaat ko ñëw indil leen ko. waaw tey daal lii lañ leen indiloon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah prochaine fois incha allahu taala dinañ leen indil nan la kiiwe kiiwee effet yi nan la ñuy bindee ci biir outil plume nan lañ koy utiliser yooyu yëpp danañ ci ñëw texte yi nan la ñuy dindee fond vert ci biir nan la anime animer texte bi de gauche vers vers droite de droite vers gauche ainsi de suite ainsi de suite yooyu yëpp incha allah taala dinañ leen ci ñëw kon wéy leen di abonné di partager vidéo yi ngir ñeneen ñi nga xam ne bëgg nañ ko te mënuñu cee jote buñ ci jotee rek mu doon seen njariñ doon njariñ ñëpp waaw Touba du baax barke borom Touba